ne ko kullu daalika lépp loolu min indi fi ka nga xam ne laa taraahu du ko gis alxuyoonu bët ya wala tuxaalituhu te du jaxal seen ay jëxi jaaxa waxaajati ci sama soxla ilayka jëm ci yow yaa Muusa yow Muusa an tadduhoo mooy nga ñaan allah yàlla taxalaa kay na aneej xalam min ahli jannati mu bokk ci waa ajana bi mu ko ne fii am naa fi juróom ñaar fukki at waaw foo jële lekk ak naan ak tol jur bu yàgg boobu mu nekk loolu lépp yàlla mi nga xam ne dara ump ko bu jëfi jaax ci benn mbir sori naa bu jëfi jaaxa loolu lépp moo ma koy jox ci moom lay bawoo waaye mu ne ko Moussa benn soxla képp la am ci yow mooy nga ñaanal ma yàlla mu boole ma ci waa àjjana wa xaraja bi mu génn moom Moussa minal ghaari ci xunti ma wa araad te mu bëgg ay yafala mu def fa sami xam mu dégg bu ñu bàyyi ci woote ba mu naa ko laata doxu bul ñaan la ñeel ko li am na hoo ngir naka moom min ahli naar ci waa safara ah, naka Moussa génn ci xunt bi bëgg ko ñaanal li mu wax ndax yàlla boole ko ci waa ajana ñu xaaju ko moom Moussa ne ko bul ko ñaanal mu bokk ci waa ajana ndax moom ci waa sawar la bokk farajaxa dellu Moussa Moussa alayhi salaam yëpp kii di jooy bu kaan ak jooy shadiidan guy aji bar xataa ba kaa ba jooy algulaamu nguur sa li bu kaa ay jooyam lu faade ko yërëm di joy di joy bu mu ci si ci bop lu sax dafa ci di joy ngir joy musa yi xala Moussa ne ko ma san hatu ko lu sa jëf ya ko laam yo nguur ci xala mu ne ko maa aataytu musuma dikke ma seetan genn moy wala taraku te bàyyiwuma waajiban wenn war gar walakin ni waye man xasaytu mooy naa alwaali ni ñaari waajure ya. ah xala mu ne ko innaka naga yow min ahli nar yaa ngi ci nañ sawara hmm manam du musa joye ba son du ngóor si joye nga ba joye musa musa Moussa dana ngóor si wa lo def ba yàlla ba suñu borom wax ni ci wa sawar nga bok mu ne ko du lu du ñu déglu lu ma di fudde du ñu ayé tam lu ah, ma def xana ñaka top sa ñaari wajur moy sama wajur de non la def musa ne ko akay lolu lolu nga def na moy waral dem sawara ñaka top sa yaari ñaka top sa wajur yi nga wax nah, loolu tax bok ci wa sawar qala mu ne ko nak iza kana dem nek na laa budda mënta ñàkk fadu ñaanal allah yalla ay ñam la amu feesal jahannama jahannama bi gis mi ci sama yaram wi li allah ya xulaxaa ngir mu bañ koo duggat ngir bañ duggati ahadun ken dina ko simina ci julit ni illa ana mariman man ne ko ndegam dem sawal mënta ñàkk ñaanal ma yalla bu reeyal sama jëm ba nga xamne su ma jahannama ken du ci xajati benen julit du ci xajat ak man ko defé man rek sama dugg sawara tax benn julit du dugg sawar tax boo feesalee sawar del del ba kenn xajatu rek mu baax hmm. farafaxa mu yëkkati moom Musa alayhi salaam tarfaxoo ji ba ila sama jëm ci asamaan wa araada mu bëggoon an yaddaxoo mu ñaan allah yàlla ya bi zalika ci loolee fa isa bi nidaay am ci lu may ca woote ba ñu ne ko laata dox bu ñaan la hoo ñaan ko bi zalika ci lool fa inni naka man qad jaxaltuhoo def naa ko min ahli sahadati ñu bokk mu bokk mu bokk ci ñooñ texe وجعلته دفناكو من أهل السعادة مبوك شنون تخي ورضا أكرم بصبره تصبب من يمجي أما دو ورزي وحي لولو موسى دنا ورنا كنا كنا نعنا لولو بوك نكو يدوك نعنا يخاج كنا كو لولو مت نعنا نخي الله فرنكو بولجي واجنا نخمنا أمنيوم فمطل فرنكو بولجي واجنا حكاية الأمنة الله ورو ينت لفنا عن مغيب ابن أسماء قال منه innahu naka lu modi kana amona na fi bani israil ci bani israil rahibun ab labbe yaabud bob day jamu allah yalla fi sawmaatihi ci jaamu kaayam ba ci tiina juroom benn fukk sanat san ci at wala mu yanzur te xoolut ila sama jëm ci asamaan wala ila al ardu jaagal jëm ci suuf netli boobu dane am na jamu jaamukatu yàlla bu bokkoon ci bani israil boo xam ne sax na ci jaamukaayam juróom benn fukki di jamu yàlla si giwul xool asamaan yëkkatiwul bëtam xool jëm ci suuf si sax ci jàmm gi rek fa nazara mu xool yow man benn bés ila sama jëm ci asamaan danga koy def fa ajabatu te neex ko asamaa asamaan ndegam gëj naa gis asamaan am bis mu yëkkati bëtam xool asamaan asamaan si neex ko fa qaala mu ne law nasaltu doonte wàccoon naa ilal arda jëm ci suuf wa mashurite ma dox fii haa ci moom wa nazarte ma xool ilay haa jëm ci suuf si xam nga daa gëj xool asamaan ak suuf bam xoolee asamaan bu neex ko mu ne waaw te ma wàcc itam xool suuf si kat defe naa ni asamaan si neex su ma wàccee xool suuf si itam noonu la may neexee wana fa la mu wàcc wa ma xoo tam ànd ak moom raxiifun aw mburu wax jaaw te dikkal ko saailun aji yalwaan xëy na fa ci waxtu wàccee fa dafa xoo te mu jiñ mburu wa jëm ci moom max jooxi ànd xiifam ba wa shiddati ihtiyaaji ak taruk aajo woom gu ila roxi jëm ci mburu maanaam ba muy wàcc dafa wàccaale aw mburu fekk xiif na loolu waaye gis na ku yelwaan kooku yelwaan ko mu daldi ko koy sarax bàyyi bopp la muy xiif xiif la muy aajo aajo woo mburu su ma mu dox nag fil ardi ci suuf fa xaradat te gaar la ñeel ko ibraatun jigéen faf tatana te mu fitnawoo bihaa ci jigéen joojee mu fitnawoo ci jigéen jo mooy rek mu sopp ko cofeel goo xam ne teyatu ko walam yamlik te moomut nafsahu boppam xataa waaqaha ba mu njaaloonteeg moom fa adrakahu te dab ko almawtu dee wax woo te fekk ne moom ala tilkal xaalati mu nekk na ci moomale mbir mbir mu day waar nga nim jaamu yàlla nim yàgge naka mu wàcc noonu fi suuf rek ba saraxe mburu woo bu noppi nag jenn feeñu ko mu rafet ci moom loolu xëy na mënta téye boppam mu daal di fexe ba ba mu tolloo ci njaaloo moom rek far ñu ñu ñu ñu locc gi xam noonu mu toll noonu mu defoon di njaaloo moom rek foofu la ko dégg dikkale hmm, doy na wa jaa anaa dikkal noonu al axbaaru xibaar yi ne àndahoo naka moom yutaa def nu andi bi ci moom yow xiyaamati bis penc ma xamal yi ànd ak jëfam xam ne xam ne lahoo jëfoon na ko fii tilka sittiina ci yooyu la juróom-benn fukki at fa yoo te def ko teg fii kifatil miisaani ci boolu balaas wa yuutaa dee fi dikkee bi tilkal qati'ati ci wowale ñaawteef wa yow baxuta dee fi ko teg fi kifatin ci boolu balaas uxra beneen fata tarajjahu te muy lëng ala xamali sittina ci jëfi juróom-benn fukki at yi mu ne nee nañ bu bis pencee buñ peesee yoolu juróom-benn fukki at yi mu doon jaamu ñu ko tegoon ci balaas jël njaaloo gam doon njaaloo teg ko ci balaas njaaloo ngay wat wala jamu yalla gi nim nim bare nga xam ci lu dëgg fi ceet xoolul fi asamaan ba suuf waye ku do setti tuyaaba jooje nga ñu teg ko ci balance bis pencee bañ teg ko ci balance jël njaaloo gi njaalo teg ko ci balaas ñaawteefu njaaloo gi may yott jëf yiw jooju le waye xol ci top su ma ta top def na dikke di aji ni nga xisi ci tuyaaba ñu buruwam sa woon fa yo dafa tëddee fi ko tek fi kifatil misani ci bolu balance ba fa yatara jaxu tey dalika lolé hal qati'ati ñawteef ba fa ñun taraxu dé fi boy dé fi dem bi ak mom ilal jannati jëm aljana waye su boba ba nga xamé né jëfi ñawtefu mu ñalo gi narna ap app doole jëfi yi bu ñu andi mburu mom saraxawon bu waccé tiyabay mburu buñ ko tege ci bu and ak tiyabay jëf yam doon jëf faaw place yi mom dana wat ñawtefu ñalo gi su boba nga and ñal koy jitu yobbu aljana hikayatu hmm. libere net ni la waruwe net leef na ne am rajulan naka way minal aghniyaay ku bok ci moy ris ni ni bok ci way woomal ñi aw den kon na bax da awladi len ay doomam mo mo tafek fekk na moom yuxi boo dana ko sopp xala mu wax la ho ñal ko ne ko in mitu dem fatuna la laa taris bul donn min mali ci sama alal ma ikhwanika andu say mbokk fa ben way bu womal nee nañu am kenn ci doom ku mu sopp lol den ko ne ko na bu ma faatoo itam yow bu bok ci ñi don sa alal ñi dee yow bu ci bok wa maata mu faatu wala mu rista doonut min maalihi ci alalam shay'an dara maa ixwaanihi ànd ak ay mbokkam doom ji tam doon ko dégg ndigal ba ñuy séddale alal ji taxul moom mu nangu caa bokk kenn joxu ko ci dara nangu caa jël dara fala maakaana ba amee bax da ayaamin ci gannaaw ay fan rek xalaa yi dañu diwéen néew wala maakaana mu nekkee rek bax da ayaamin ci gannaaw ay fan xalaa yi dañu diwéen néew ataahu digal ko aboo bàyyam fil manaami ci nelaw fa qaala mu wax la ñeel ko ne ko izhab demal ila mawdihi kasa jëm ci birab sangam fi nek na ci alfani ñaari junni dirhaman ci dara wa qala wax la ho ñal ko alim doom ji ne ko afihi ndax nek na ja way afihi ma ndax nek na ci ñoom ñaar barakatun barke qala mu wax la ho ñal ko ne ko la dedet fa qala mu ne ko la arqabu duma xem fi ma ci lo xamne laysa fihi dir mi nek ci mom barakatun barke manam bañ ci tege fan ngor ci da gënt gis bayam baay bu ne demal bërëb sàngam boo ne ba ñaari junne nga fa nga fab ko ngoo si ne baay bi ci gént gi ah, ndax ñaari junne yi barke nga ca mu ne ko déedéet mu ne ko man lu amul barke soxlawuma ko fa xaddasahoo mu nettali ko li saw jot yi ñeel soxnaam farax yi ba soxna si moom xemmem fii fii ci maa ñaari junne waaye fa abaamu bañ rek moom ci boppam waaw ba ba nguur si ko sama baay day feeñ na ma ci gént nee boo demee ñaari junne nga fa waaye dama ko laaj ndax ca mu ne ma mu nekk man loolu barke bëgguma ko soxna si moom mel ne loolu du xalaatam bu doon moom bu doon lu nu xalaatam mooy mu jël ñaari junni ya waaye ngóor si moom bañ rek nag man daal loolu barke moom bëgguma ko su ma raaxu topp mu gisaat ko aydan ba tey fil manaam yi ci nelaw fa xaala mu wax la hoo ñel ko ne ko idhab demal illaa moo bi si kasaa jëm ci béréb sàngam fii nekk na fa kat nekk na ci béréb boobee alfu dirhamin junni dërëm fa sa alahoo laaj ko al ibnu doom ji kat awali nekk bu jëkk ba fa ajaabahu tontu ko al abu baay ba xal kan awali niki bu jëkk ba fa abate bañ al ibnu dom ba aydan ba to te koo ci nelaw mu ne ko sama dom bo demee béréb sàngam ak junne nga nga jël ko dom ji ne ko ndax amna barke ne ko déedéet mu ne ko man di lu amul barke soxla ma ko suma raahu tok mu ko fil manam ci nelaw aydan fa xaala mu wax la ho ñeel ko ne ko idhab demal ila mawdihi ka saa jëm ci béréb sàngam fi nekk na ci dirhamani ñaari béréb fa xaala mu wax la ho ko ne ko afihima ndax nek na ci ñaar doon wooyee barakatun barke fa xala wax la ho ñal ko bu bay bi fa xala wax ho ñal ko bu bay bi ne ko naam waaw fa axasahu ma mu daal leen di jël <laughs> yoon mujj moonu fa gënt gis bay bi bay bi ne ko demal béréb sàngam ñaari dërëm nga bo boo nga jël ko mu ne ko ndax amna barke barke nga ci ñaar dërëm yu mu ne ko waaw mu ne ko waaw kon di dama koy jël dal dem jël ko gantu won na gis nga ñaari junni gantu ak junni ëlbati ko nangu ñaari dërëm waaye nag barke bi nee na moo tax moom mu nangu ko wa dahaba mu dem bi himaaj ak ñaari dërëm yi ilaa zawjati jëm ci soxnaam fa xaalat mu wax la xoo ñal ko ne ko abayta bañ nga kasiiran lu bari waa axasta te nga nangu mooy te nga jël xalilan lu néew ah, mu dem soxna si ne ko ñaar naa ko ndax saa baay am na barke ne ko ah, nga weesu ñaari junni weesu at junni nangoo ko jël di jël ñaari dërëm fa xaalat mu wax la xaa ñal ko ne ko raxibtu xemim naa fii ci moom barakatan barke ne ko barke bee tax ma bëgg ko wax wax tu xeyna na fihi ma ci ñoom ñaar mu gëna wor wala bok fihi ci ñoom lolu bok batay baax na baye fi suma zahaba top mu dem bihima ak ñaar dërëm ñu ila shokh jëm ci marché ba fa te bu fekk sama katan aw jën yata la la aw woo dana melxati batnuha biiram ba washtaraha te mu jënd ko bihima ci ñaar dërëm ñooñu ne wa ahtaha te mu jox ko sawjati so naam sa li tasnaha ngir mu defar ko aw ñam mënees naa yóbbu ñaar dërëja dem ba ca marché ba mu fekk aw jën woo xam ne boo ko dee xool biir bi day leer leer daal jënd jën wa ñëw jox ko soxna si ne ko defar ko tonk falam ma baqarat ba mu xaree rek batanaha biiram ba ay li mu ci namm ci baqarat boo ko xamut mooy xaraqataa xotti na ko waaye nag bu dee loolu ci biir bi moom xaraqat fu rek lay doon xanaa ba mu xottee biir ba rek wajal fekk na fii ci moom lu ul atay ni ñaari peril wursu loolu fa jaar mu dikkee bi himaa ci ñoom ñaar ilaa sow ji jëm ci jëkkëram ji fa wadaxahuma te mu teg leen fil bayti ca néewa maanaam naka mu ne ko defar jën yi naka mu naka ndaw si xotti biir jën yi fekk ci ñaari peri lu wurus luulum mu andi ko ne ko ñaari per yi day ci biir laa ko fekk bi jën wi jëkkëram ji mooy nijaay yi daal di koy jël teg ko ci néew ba lu ci yàlla yi bëgg a dogal lu yàlla yi bëgg a dogal nag mooy lii فقيل وقيل سنة إن ملك نك أبور زينا واجلنا ابنته دوم بجيجينم بأنواه الحلي تخيط تكاي من نيتم بأنواه الحلي ليذهب غير مدن بها أدمم إلى سوجها جوج جكرا نيتم بياغ نك هم كان لكي واجل دوم بجيجينم بكو يب موسي وهو تيمم جكرم جوجي ملك بور لأيضا بتاي وأقحدها تيمو ديجكو فوق سرير سنجكو أبلغ waqaala mu wax li xaw mi ñeel nitam ne leen umturuha xool leen ko ayu shayin ana man mbir tax taaju lay aajowoo ilayhi jëm ci moom man na minal xali ci takkaay man na minal xoli yi maanaam dafa waajal doomam ba ñu bëgg a sëy fekk ne moom buur la ki mu koy bëgg a jox itam buur la ne moom mu dij ko mu toog mu ne leen xool leen ba xam nag lu gën ci moom ci xeet takkaay fa xaaloo ñu wax ko ne ko maanaraa duun gis say am dara tax taaju la dana aajowoo ko minal xali yi ci takkaay فقال من فقال توخ بعضهم لنيت يومنا لو كان دون تنكون لو لو أتون ترف ترف لو على جبهة هاي جهنم بدال أنا كانوا كل منك أحسن لك من أحد أبو دوي خول لين بخام لوم كن آجي وتي تكاي ينك أم دي فين تول جكنا أم يان ين مم دي بين أمون بين بور بين تور لو لو تك كوي تجيبي كل لي كن باه فأمر ديغلي الملك بوربا بتلا بين لو لو أتي جساق كتر لو أبو بيه fawjude te fekkeef al lu atu par boobee hinda rajuli fa waaja al na siija nga xam ne am rasaxa ak génne woon na ko min bat ni xóoti ci biir jën wa fasturiya fasturiyat ngay def fasturiyat te jëndeef ko moom per boobu min ko ci moom bi ximli salaasina ci safu fanweer baxlan ci ay baxla baxlan min azahabi ci wurus waxal la xaxaate mu takk ko xalaa jëb xatihaa ci jaxam ba xam nga bu fàtte ne ngóor sa topp ndigal yu bàyyi ba ñaari per la woon nag gis nga yàlla dogal na ci sabab ñu soxla benn per bi ñaar yépp la ñu soxla waaye benn bi ci nga tolloo woon léegi daam ku ne ko boo boo jëloon peru lu lu tak ko ci bi lay gën a rafet mu daal di bor bi daal ne nañu ko wutale dañ koy wut na ñu fekk si waa ji nga xam ne moom moo amoon ñaari per yi mu jaay leen benn per ba ci fanweer yi bax lay yu diis ak wurus moom la jaay benn per bi waaw daal di jël nag léegi per boobu takkal ko ki bëgg sey waxal la qara ah, te mu takko bay mo takkal ter ba ala jëf ci ci jëhum ba suma xal tok mu neeti li xaw mi ñal nitam ña unjuruha xolaat leen ko aydan ba tay fa xalo ñu ne ko law kaana donte nekkon waaxidat benen ter ala qasaha ci doxam gi xan la kaana ko mu nekk axsana ah, di gëna a rafet xam nga ko takkal benn bi ne waaw xolaat leen waay ba xam ndax aaji woon benen takkay ñu ne ko ah mom nak day per bi ni nekk jëri ba amun bu dëggër leen mom ci dox ga kon di mom lay gëna rafet nak fa amara digli al almaliku bur bi du talabi lu lu oti ci sàkkooti benen teru lu ulu a ay dal batay tey fa mujj de ta fekkef al lu lu atu lu ulu aba batay tey hinda zaaka hinda dalika rajuli fa joojale waaye fara fa xamu yëkkati fa mën a xaa njëgam nga xatta turiyat ba jëndeef ko nul ci mom bi xim li sittina ci safu juróom benn fukk baax lan ci ay baax la min a ci wurus dagal na muy ak wecc mi ne maali ci alal ja àll fii ja nga xam ne taraka fa bàyyi woon na ko li ixwaanihi ñeen ay mbokkam min miraasi abihi ci doon ak bàyyi bi ñëwee ne ko dañoo soxlaate beneen per mu ne ah des naa benn de waaye bi yoon de moom lam jaayoon bi njëkk ba ñaar caam la koy jaay xam nga da ko jaaye woon fanweeri bax la yu diis ak wurus te juróom benn fukki bax la yu diis ak wurus lay jaayee perum ñaareel loolu ko mu jënd ci moom ndax buur moom ndegam dara jeex wu ko te gis nga mu ne kat topp ndigalul baayam dam ko waxoon ne ko bul doon ci sa alal gannaaw bu mu feeñ ko ci gént lu ko wax mu ne ko soxlawu ma lu amul barke ba mujj mu nangu ñaar dërëm yu am barke ñaar dërëm yi kat moo jur lu bari lii xikmatun hmm. lii beneen xikam la kaana nekkoon na xal yun xal yu karama yàlla na doole teral allahu yàlla waccaxoo jëmmam ja daata yowin nekkoon na daata yowin benn bis yam xii di dox fii zuqaaqil madinati ci yoon wu xat ci madina suqaq moy at tariqu ak dayiq moy yoon wu xat mo xam sarna mo xam sarut fojada mu fek tabiban ab fajkat yatti bu muy an annasa nit ñi fa qala mu wax fa qalati wax lahu ñal ko haliyun haliyu karramallahu wajha ne ko ya tabibu yow fajkat bi hal hindaka ndax nek na fi yow dawaun safara li dunu bi ay bakkar ah dafa fekkon dana dox ci ben mbedd ci mbedd mu xat ci medina ba yàgg mu fekk benn fajkat bi faj nit ñi al ñu ne ko waaw yow da nga na ngay faj man day ay bakkar la amé ndax am nga saafaras bakkar ay bakkar fa xaala mu wax la ko ne ko na am waaw ya sayid yo sama sang xaala wax la hoo ñal ko xaal yun xaal yu karama allah wajha ne ko ma hu ana luy moom yaa tabiw yow kat bi xaala mu wax la ko ne ko iqdam demal قدم يقدم بودي سي بايكو اقدم لاي دون دمال الى واجب الايمان جم سي خرو گم واحفر تنگ گاس منو سي موم خروق النيه راني يني واوراق الندامه اقو بريچو دوار الحلم اك تورتوري خم خم وثمرة القشور اك نيتو ماغال يالا وقشور التواضع اك قسم ترخلو واسحقها te nga rukk leen dafa def wasxaq xum nag waaye xaa moo gën a jàppale ci waxin wi fii mihraasi tawbati ci tuqus tuub dafa defaat wax litt xum te nga jaxase leen waaye wax litt moo gën a yell ci béréb yu mel nii wax litt te nga jaxase leen bi maa il xayaa ci ndoxum kersa dafa defaat waj xal xum te nga def leen waaye waj xal xaa moo gën a yell ci béréb yu mel nii te nga def leen fi qidri rajai ci cinul yaakar wa alqid te nga taal taxtaxaa ci suuf cin la narul khawfi sawar ragal yalla washrab haa ba tey mu gën ci washrab hum bu de ci béréb yi mel nii washrab te nga nané len dik asif sabri ci kasuk muñ xam nga aliyu dafa rombu kuy faj mu ne ko da ngay fajam mu ne ko waaw mu ne ko man day tawati bakar la amé ana la koy faj ne ko da ngay dem ci xuru utale gasfaren yene reen yéene mu taalifa xobi mu taalifa tóortóori xam-xam mu taalifa meññatum ragal yalla mu taalifa xasum toroxlu na nga bolé ko sóob ko ci rukk ko ba mu ndox mang koy ngir nga man ko rukk nang ko ndoxum kersa su ko defee nag nga wëlbatiku sóob ko ci ci dul yaakaar ci loolee nga taal ca suuf sa war waragal yàlla ko defee bu sottee nag nga naane ko kaasu muñ non la ko wax ne ko non ngay faje sa tawati bakkaar jooju le xaala daal di wax la wëñeel ko xaliyun xaliyu ne ko sadaqta dëggal nga yaa tabibu yow fajkat bi aliyu ne ko wax nga dëgg de loolu de ko ko def bu ci bu soobee yàlla sa jàngoro bakkaar dina wér حكمة لي وحبام يرين له قال الغزالي يحكي نتلفنني أن سبكي أنك سبكي رحمه الله خدم لقيلنا أربعة مئة أستاذ ينتي تيميري أستاذ وقال منه قرأت جانغنا أربعة آلاف حديث ينتي جني أديث su ma axal su topp muy jële min xaa ci ñoom xadisan ab addis waaxidan bu di benn fa xamiltu ma jëfee bii ci moom waxal lay dute ma bàyyi maa si waaxu lu may moom li an yi ngir naka man te amaltuhoo naa ko foo jëtt ma fekk xalaas yi sama mucc wa jaat yi ak sama mucc fii ci moom woo jëtt ma fekk xilmal awwalina xam-xam woy njëkk ña wal aaxirina ak woy mujj yi kullahoo léppam mun darajan muy aji tara nun darajan mi aji taxañu mi aji taxañu fi ci biram fak tafaytu ma dawlo bi ci mom al imam sabki neena man de annamak ñenti téméri sëriñ ustaz sëriñ ci jublu mu ne itam jangina ci ñoom ñenti junni hadis waaye mboolem ñenti junni hadis ma caa tànn ben kep jëfé ko mu doon sokk ndax ne dong boo ko jàppee war naa doy sëkk xam-xam yi njëkk ñu mujj ñëpp dugg na ci biiram ba tax mu doyloo ko wa dalika loolee mooy ann rasulallahi naka yonantu yàlla bi salallahu taala alayhi wa sallam xaala waxoon na li bax di asxaab yi ñeel leen ci ay saxaabaam ne ko ixmal jëfal li duniyaa ka ñeel sa àdduna te xadru muqaamika ci kem sak sax fiihaa ci àdduna wa axmal te nga jëf li ka sa te xadru ci kem ci sëñ bi andi won nako ci mazalik yonent tu won woon kenn ci sahaba aduna bi nga xamne mom da nga fi jaar kep jall da koy defal lu yem rek ndax doo fi yàgg nga fi jaar rek jall waaye àllaaxira mo nga xam fu nga dëkk bu wër wër boo ko sanc doo taxawaat moko ko rek xet ko wala ko loolu mooy ben wax bi wax bi da daanugul nag muy wa amal ta nga jëf lillahi ñeel yàlla bi xadri xaajatika ci kem sag aajowoo ilay jëm ci mom wax ta nga jëf li naari ñal safara te xadri sabri ko ci kem sëng muñ xalé ha ci safara wax da ko ñëk wax ne ko aduna mi nga xamne as bi rek nga fi am mel ne ku fi tukki ci dal li kon da nga koy japp rek keruk tukki lo am rek dawal ko ci alakhirah alakhirah nak mom loko fagul rek xeb ko ndax nga bo fu xasse jeex na mukk kon loko fagul rek xeb ko ngi mel tay bu nawet jotoon rek ngay dem ca àll ba fas fi yene nawet nga ñu wat ci kër gi xam nga lo fa mëna nek nekk rek nga fay nekk nga fay def waye lepp lo fonk mu fi ci dëkk nga koy wajalal aduna ak alaxira itam nag noonu la mel lo fonk rek wajalal ko alaxira fii nag moom ab kay la nga set loo fi mëna jaar rek baxna mu ne ko nak sun borom mi nga xamni mo la sak te nga wéeru ci moom mën laa wéeg sa bopp foo toll dee ko kër këril sawara mee nga xam ne itam ñàkk jëfe ndigal bàyyi tere mën na la caa yóbbu kon del seet bu baax a baax jëfe ndigal ak bàyyi tere lu metti metti muñ mettit wa moo tax ne muñ sawara te ku muñut seenu mettit boo tuut loolu mën na laa yóbbu sawara sawara xam nga ne mënees koo muñ mbaa bokk ca dem te mënta ñàkk rek nga xam ne xas na ci dem ba noppi mënta ñàkk muy rek kooku rek ci jéemu muñ am bu fekkee ne jëfi ndigal bàyyi tere dafa metti ci dafa metti ci itam da ko tolloo léegi rek dem sawara su boobaa boo ko tollee dem sawara rek jëfi ndigal bàyyi tere daal di woyof ci yow lu jëfi ndigal bàyyi tere jafeñ-jafeñ ak lu mu dis dis lu metti metti rek sawara ko gën a metti ayuhal waladu yow yow xale bi isa xamilta boo jëfee bi xaadal xadis ci bi la addis لا حاجة جت آجو ولا قد لنيال بالحلم خم خم الكثير بأجباري من اللي دال بوبو جفيون دو آجو بين خم خم بباري دين سكت خم خم حكاية لأبنية الله أبنية الله بيوانيني سن بروم رك كمتا يك أب ماغم وعي لملا لملا ما دتولول بليك سبب وفي الخبر نكنا جي خبار أن الله نكيال تحلى كينه لما وصف بملل الحرش عرف بالتحسين تيك ماغل بخوله تي وخم جنه لا اله الا هو رب الحرس العظيم وسوسة دال ناي جخ جخه في نفس الحرس شي خيل الحرس الله يذم اك ماغ وحجبتي مي يوم بان الله تي نك يالا تخلا كوينا لم يخلق مستساك مثله كم نل موم في الحزم تيك ماغ نت لي بوبو داني بسم الله لا اله الا هو رب الحرس العظيم yalla rek kay yalla te muy borom aras ku màgg gi xam nga aras gi ci bopum la la wax ne mo màgg delawul màgg gi ci boppam newul rabbul xarsil xazimu dana rabbul harshil xazimi xam nga aras gi ci bopum la ne mo màgg naka wax lo aras dal di yeg ne kon bopp mom ku màgg la ndax yalla dal ni mu tollu lum ne rëy na rek mag na rek kon japp na ne kon yalla sokku lu tollu ne mom ci mag wala ci réyaay wala aras japp fa khalaqa sak allah yalla hayatan jaan ismuha yoo xam ne turam tayxaanu mooy tayxaan wa ahatat mu tek bin xars ci aras sabaxa marrat jurum yar yoon waxi la waxees na ne sax alfa marrat juni yoon wa baqiyat tedes subratun abjal wala nga ne ab jor azimatun bi aji manam bi aras defeni mom dal li yalla sak mo ci gëna reey suñu borom dafa sak jaan joo xam ne li tuddu waye waaye tayxaan rëy na rëyaay ab guddaayam mën naa aras juróom-ñaari yoon am na sax ñu wax ne junni yoon te bu ko waroon juróom-ñaari yoon laxaaru ko moom aras du tee jal bu rëy rëy des ci moom boo xam ne kenn tàllalu ko ci moom jaan ji nga xam ne womal yow mu déet benn bés illa wal xarshu dara nga xam ne aras yataxawadu dana muslu min haa ci jaan jooju arbaxina ñeen fukk ci ay yoon makhafatan ngir ragaluk aras ci bopam min ha ci jaan joju an tatlaqahu ci mu te ko mu ne wax ne ne aras bis bu nek dana ñaan yalla ñeen fukki yoon ndax mu musul ko ci jaan joju rek ndax ragal rek yalla xirtal jaan ji ci mom jaan ji diko dam te waqila na ne laha ñeel na jaan joju sittu mi'ati alfi wajhin juróom benni téeméeri junni kanam wa fi kulli wajhin te nekk na ci gépp kanam mis lu tibaaxi duniyaa kem déele àdduna la nga ne yaatuwaayu àdduna am na ñu wax ne jaanjoo ji dafa yéeme ndax ay kanam rek am na ci lu mat juróom benni téeméeri junni te genn kanam gu ci nekk rek yaatoo na ne yaatuwaayu àdduna waxiya moom jaan jooju nag muxitatun aji wër la bil xarsi ci xaras arbaxata alaafi marratin ñeenti junni yoon xam nga nett li bee dafa waxan ne junni yoon dong am sax ñu waxan juróom-ñaari yoon dong waaye bii moom dane am na ñu wax ne jaan ji ab rëyaayam àgg na ci mën naa laxaaru wër aras ñeenti junni yoon nga xam ne famal yow famal yow mu déet benn bis illaa wal xarshu dara nga xam ne aras yataxawadu dana muslu min ha ci jaan jooju maxaafatan ngir ragal min ha ci jaan ji an tatlaqahu ci mu damute ko wara suha te bopp ba moom jaan ja min ad durrati mi ngi bàyyi ko ci wursu durr al baydaa wu aj wa jasaduha te aw yaramam min ad dahabi mi ngi tukkee ci wurs laa yaalamu du xam tilkal xayata jooju la jaan illallahu ndara yàlla taxala kawe na wax ne ne aras daal bis bu nek day ñaan yalla na yalla ay wayu musul ma ci jaan ji bu mu dama te ko mukk jaan ji lay wax na bobba dañ ko saké ci wursu duru wéx yaram wi ci des nak mom bayiko ci wursu wu xong coy nga xam yalla rek mo xam jaan ji deug ak mbiram wala ha ñel na janji arbahatu alafi janahin janaahin ñeenti junni laf min anwahil jawahiri ci xéti wurus yi ay laf li ci jaan am yéemu ndax am na ñeenti junni laaf yoo xam ne laaf yi ñu ngi ko liggéeyee ci xeeti wurus yi rek xeeti wurus lañ liggéeyee laafam yooyu lee ba mat ñeenti junni yu sàbbixoona danañu sàbbaal allah yàlla xazza tedd wa jàpp